internet euh, Gédoy Info TV à ah, jii Gédoy Info TV mon ngi nous avons Amadou Bari. Nous avons dit que nous avons information les les militaires ont l'honneur on ne tue on ne déshonore pas deuxième édition tournoi UMPS, Union Nationale des Patriotes du Sénégal première édition a été remportée par le contingent 21 2000

parce que man mii di wax yow ci côté Jean bi et tamit ci association bi laa bokk. ñu leen di nuyu yéen ñep ku nek sa tour ak sa di contane ci Bon, on est à la terme du tournoi de l'UNPS, qui était constitué par six amicales. Six contingents, on est à terme. Donc on doit jouer la finale aujourd'hui. La 12-2 qui doit jouer avec la 21 dans le fair play. Comment à ko ci bisimillahi rahim nous ngi égalité égali alamin kon ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm ñëpp ñi nga avons participé à nañ ci tournoi bi ak avons ñi nga nañ tournoi bi bu comme niñ ko doon chaque jour nous lañ koy Le tournoi bi dañ ko rien que pour raffermir des relations entre les contingents entre les anciens militaires pour nous gën bon nous wax c'est la deuxième fois nous organisons organiser tournoi C'est la deuxième fois bi nous avons le football final bi vous ma di ñaan rek comme niñ ko commencé woon commencé woon ko ci jàmm ak football ci jàmm ak salaam tey tamit dañ ko war finalu ci jam ak parce que final fête la final fête la INPS ñun ñoko pas ñepp n'y a pas INPS pas anciens militaires yi au Sénégal n'y INPS ubil na len sen porte kep ku ñëw di nga ci UNPS Union nationale des patriotes du Sénégal qui constitue tous les anciens militaires tous les anciens militaires j'ai dit vous êtes convoqués à venir massivement intégrés pour la réinsertion des anciens militaires du Sénégal. Bon, donc nous avons joué ci jamm finalu ci jamm fête ci jamm mu jeex ci jamm ku nek ñibi ci jamm ma ngi len di bégué yeen ñep contane na ci ñep Info TV euh, di leen wëral les informations actuellement ñu ngi ak les membres de l'organisation voilà les organisateurs de cette euh, deuxième édition du tournoi UNPS mi nga ancien militaire du Sénégal des gens qui méritent du respect des gens yi nga xamante ni suñu lépp wala seen solidarité avec ak li nga xamante ni doxal hein. euh, monsieur Gakou président commission sportive UNPS donc moom laay jox euh, dit, gi di bonne laaj bon sentiment la deuxième édition bi nga xamante encore une fois bon d'abord, je maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di kontaan si géejawaay point disponibilité vraiment nous ngi leen di remercier vivement l'INPS vous remercie vivement au nom du euh, président de la commission sportive man maay Modou Gakou euh, nekk président sportif l'INPS. bon tournoi bi c'est la deuxième édition organisons organiser euh, tournoi de foot fi nga xamante ne l'INPS organiser bon le tournoi bi 6 contingents la won daw 4 contingents la won mais rendu 6 contingents la comme ça veut dire que amna évolution bo xamantene ñu ko ci néméku wa INPS nak dafa objectif am moy rassembler tous les anciens militaires tous les anciens militaires du Sénégal rassembler les ñu le même objectif bi même bëgg-bëgg bi le même euh, xalaat comme nous avons ay militaires lañ anciens militaires nous allons nationale des patriotes du Sénégal nous avons ne regroupé ay contingents nous avons organisé un tournoi nous avons ba tey pour jouer final bi final la entre 2012 euh, et et la 21 avons football. le football. waaw monsieur Gakou ma dégg cadeau nga ne seen but rassembler tous les militaires te militaire beaucoup ko militaire da ngay wax et je pense que ni warul doon loo xamante ni compliqué le quoi lan mooy li nga ne mooy bi nga xamante on peut pas avoir tous les contingents wala le reste des contingents est-ce que tamit aussi ci les anciens militaires rek la yem wala tamit dafa nekk ci les militaires en service bon comme nous nga dit, les anciens militaires qu'est-ce ñi nekk sous les couleurs maanaam képp ku solto ni képp ku solto ni bokk nga ci biir UNPS décentralisé wuñ ko ne ko ñi nga xamante ne ñu ngi sur les wala ñi nga xamante ne nekkatuñ sur les couleurs ñëpp ñoo ci bokk képp ku musa solto ni UNPS ubil na la portam pour nga ñëw bokk bon comme euh, dañ koy door a commencé deuxième année lañ nekk daaw quatre équipe la woon ren ñëw nañ mu 6 kon espérons que année prochaine dinañ dem dinañ dem parce que tout début ni la petit à petit l'oiseau fait son en progressant en forgeant on devient forgeron comme def nañ ko ñu gis ci suñu nous tamit ñun tamit ñu koy année bi tamit année année prochaine tamit dañ koy mais ñu ngi ñu anciens militaires ñu ngi pour massivement rejoindre INPS ñu lutter contre la réinsertion des anciens militaires objectif parce que anciens militaires yi tamit ay nit lañ dañ leen wara a dañ leen bala bokal bolé ci nation bi du question que boo demee armée boo ñëwee nga jeexal sa classe yi continuer rek yow pare nga ci affaire yi quoi pare nga ci monde bi ñun am na ñun militaires yi nga xamante ne ñu ngi jànkonteel ay difficulté am ay militaires yi nga xamante ne tamit ñu ngi ci prison yi ñii ñu ngi leen di traité de façon bu ne ñii tamit ñu ngi nekk ay euh, ñi nga xamante ne ay blessé de guerre lañ loolu yëpp l'INPS dafa jóg pour réinsertion anciens militaires yi nga xamante ne ñu ngi ci ay tolof tolof ñoom ñëpp ñu revenir aat leen boo ñoom tamit ñu sentir seen bopp ci biir armée kon cri de guerre bi moy la réinsertion des anciens militaires et les militaires et les les lu ñu koy wax les modèles 8 hein les modèles 8 hein mo dafa melni faté fàttewu ma tamit hein les modèles 8 ñu réinsérer les waat leen parce que tamit wax nañ dëgg hein yow mëno servir ta nation ba pare après nga nga nga dem ñu bàyyi la banaliser le nii lolu c'est insensé effectivement lolu nak motax euh peut-être auparavant mënon na am mais euh évolution bi magna xalat yi magna nit yi magnañ ñu wara jog nak ñun ñu wara jappalé suñu bop d'abord bala kenn duñu jappalé motax ñu créer UNPS rien que pour réinsection des militaires parce que c'est pas facile que yow nga nek euh xalé bo nga xamantene actif am lepp sa lepp mot nga dem armée un bon ñu libérer la na demal tedi jox la ben diplôme bo xamantene dañ la koy jox mais diplôme bi ngay jox fop foko déposer dañ lay nane lolu diplôme ay remerciements dañoo war a fexe ba suñu diplôme FQE boobu nga xamante ne moom la ñu jox ancien militaire bi ñu ñu reconnaître ko par l' état l' ko bu nga xamante ne armée mënul soxla ñëpp loolu ñëpp xam nañ ko mais armée bu la bàyyee diplôme bi mu lay jox boo ko déposé feneen nga mën a liggéey mais diplôme bi dañu koy jox dañuy dañu koy jox rien que pour ñu remplir suñuy fooy mais parce que amaluñu njëriñ parce que reconnaître wuñ ko par état amul valeur léegi ñun nag ñuy jóg pour lutter contre loolu noonu lutter encore ci anciens militaires yi nga xamante ne ay blessés de guerre lañ toppatoo leen dem nañ guerre am nañ ay blessé te am ay famille am ñu leen yaakaar am ñi nga xamante ne dañoo topp seen ginnaaw ñu banaliser leen bàyyi leen fàtte leen loolu tamit dañuy jog pour lutter contre loolu mu jeex loolu moo mooy objectif u UNPS. kon objectif UNPS. moy jox xex ñu jilat les anciens militaires et les modèles 8 les blessés de guerre ak ñi nga xamante ni nañ bay fi sen jabot ñu leni di donc lool moy li nga xamanteni ni la waa NPS wax mom lañ bëgg te def le président de la République du Sénégal dina ko dégg et plus euh, précisément le représentant du maire monsieur Aliou Sall il est là donc def naa ne ko laajee ci loolu mom dina am lo xamanteni mom lañ ci wax monsieur Aw mi melni ni yi ñi ngi joy ci li ñuy wax né deux ans bi nga xam mo moom def armée

Géejawaay TV parce que Géejawaay info bon dañuy ñaan sax mu ñëw ba ci TV parce que Géejawaay moo toll foofu bon ku xamoon Géejawaay démb euh, xam ko tey nga xam ni yokkute bu mag am na euh, comme li ñuy wax rek ñuy joxe info bëri na mais foog naa ni ñu ngi suivre seen page bi di suivre li ngeen di information yi ngeen di joxe biir Géejawaay kon bu ñu nekkee ay doomu Géejawaay yàlla def euh, ñu am lu ñu dénk ñuy ay délégué de quartier kon euh, baax na ñu seede ci Géejawaay info vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax ci seen teewaay fii bon comme ni nga ko waxee rek armée moom foog naa nit ku ko jaar këyit bu ñu la ko mënti jox këyit boobu warula tuuti foo ko présenté ah parce que armée day defar armée ni muy tàggatee di ko jëlee yar Euh, di nga ko jëlee xam luy mag xam luy xale xam luy jigéen xam luy góor kon foog naa ku mel noonu bu jaaree ci service boobu bu génnee ak këyit buñ ko mënti jox vraiment fu mu ko présenté war nañ war ñoo nee ni diplôme bi état reconnaître ko loolu nag ñu ngi ci interpellé kilifa yi nga xamante ne ni ñoo ŋànk armée bi di ko commencé ci ku gën a ndaw jaaree ko ci colonel yi ba ci généraux yi ñu eggee ko ci ministre bi ba président yëg loolu vraiment ñu xam ni euh, un homme de tenue même bu demee tey ba simmi teneem sax euh, foog naa ni am na lu mu service nation bi am na lu mu xam rawatina nag biir quartier da nga koy jàng métier métier boo xalaat rek muy nit di def ci biti mu ngi ci biir armée kon ñoom seen diplôme warul tuuti parce que tout barki démb ak euh, les anciens militaires retraités maa ngi woon foofu bokk naa ci ñu joxe diplôme yi euh, ci kanamu colonel Alassane Babacar Gueye moo teewoon euh, mu nekk ay mag ñoo xamante ni koo ci gis tey retraité na mi ngi ci 65 ans 70 ans ñooñu tey bu ñu demee ba yor matériel armé mécanique di ko jàngal ay xale nga war a xam ni simmi nañ tani bi mais ñi ngi formé waat parce que assisté naa loolu fii la woon ci Géejawaay ci Sidop vraiment mu nekk euh, événement boo xamante nii marqué na ma trop parce que euh, servir armée dem ba simmi sa tëni nga ñëw xool ne samay sët samay doom xam-xam bi nga xamante ni armée jàngal na ma ko naa ko defaat ci ñoom loolu kon këyitu armée tuutiwul Mame Diarra Ka secrétaire général adjointe monsieur Diallo moom mooy secrétaire général gis nga ko nii ah ba jëloon na ko gros plan moom moo nekk secrétaire général adjoint UNPS. laay lay la laa Mame Diarra sentiment lañ bëggoon am ci deuxième édition tournoi UNPS. waaw rafetlu initiative bi parce que yombul nga dajale ay nit waxatuma ak ay anciens militaires maa ngi koy rafetlu trop di wax ni fi ñu teg seen loxo foofu la ñu góorgóorlu parce que militaire kenn amul fayam ki bàyyi léppam ndax nation yaakaar naa kooku liñ mën a def lu dul jàppale ko fayuñu ko loolu rek laay ñaax présent pour mu di leen bàyyi xel di leen am na ñu fi dem bàyyi fi seen njaboot aussi ba tey amuñu suivi ñooñu di leen toppatoo di gëstu di xool ci lan lañ nekk dina ci baax dina motiver ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi dans les rangs pour ñu gën a dem ci kanam am naa contentement trop ci journée tey bi di ko rafetlu. waaw mu mel ni day mel ni defaale nga ay ay suggestion

message bi may lancé rek rek la moy sama frère d'armes yi nga xamné ñun ñoo nek ñu nek ben ndax union fait la force lool rek la leen di ñaan ñu jappo nek ben di démalanté di dikkalante. union fait la force mo la maam Diarra Ka wax et je pense que ni militaire boko xamé ci solidarité nga ko xam ci union parce que dañ dan wax un pour tous tous pour un.

parce que former ay militaire deux ans durant ñu sacrifier sen dundu ngir sen nation je pense que ne buñu ñu mérite nañ sort yu gën yi ñu nekkee voilà euh, deux ans yi nit ñi nekk di jàng école di ko am ay diplôme ñeneen di ko jàngee métier ñun daf ñoo fekk ñu koy consacré ci suñu réew donc euh, ñu ngi ñaan suñu autorité étatique yi ñu gën a bàyyi xel les anciens militaires parce que ñun métier arm rek la ñu jàngal te boo génnee amatoo lenn loo ci maanaam amul débauché métier arme moom armée rek lay servir à part l' armée amatoo ci benn benn soxla donc ñu gën a former les soldats d' abord au sein de l' armée mais bu ñu liber aussi ñu fexe leen a wut fu ñu leen di cadrer parce que un ancien militaire c' est importe qui du ñu nit ñoo xam ne dañuy bañ ay liggéey wala dara on a juste besoin d'être encadré pour ñu gën a utile ci suñu suñu société mais également suñu réew.